tableau d'information si COUSUM polyvalent bi fii ci comité départemental bu Mbacké euh, promo bi tàmbali woon jotee na def deux mois bu jotee def deux mois yàlla dogal mbas mi dugg Sénégal ñu arrêté woon lépp loo xam ne ay ndaje la rawatina mbirum njàng ne formation professionnelle yi donc à partir du mars moo ba bi ñu waxee rek euh, ñu joxe ndigal croix sénégalaise comme moom day tënku ci ndigal di tënku ci état ndax obsolète au pouvoir public la ci la Croix-Rouge jël dogal tamit te neen arrêté formation bi en ah, di néggandiku boobaak léegi ñu arrêté ko bu yàlla dogalee ba président nanguwaat école yéen yi tijji pour ñu def examen def ko comme ñoom dañu def formation te doon def examen itam taxutu ñu tijji yàgg na mais demaatee dema dem ba yàgg ñu xaw a yombalaat mbir mi daal ci boole formation professionnelle yi ci la donc ñun itam ñu wootee pour eggale formation bi parce que c'est une formation professionnelle mhm. waaye bi ñu koy naalee eggale nag dañoo respecté nag mesures de mhm. mhm. la teg ci suñu itam danoo tas classe yi comme ni ko école yi defee ah, ak yeneen ndax nag ba ci bi dafa am app boo xam suñu egg il faut ñu ko il faut ñu eggale programme bi def formation bi évaluer leen eggale liggéey bi teewul nag éléments yi nekk fii ci formation bi ba tey ñoo ngi ci seeta bi nekk ci xeex mbas mi ci entité yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak Mbacké mhm. ndax euh, euh, reprise bi euh, par rapport ak li ñu jotoon a jàng amul lu mu xaw a wàññi ci ñoom. ah kay comme toute reprise rek. Ah, élève moom su toogee ay weer jàngu rek maanaam dina loom fàtte moo tax bi ñu reprendre dañoo jël une semaine de révision jàngalekat bu ñëw da ngay nafaraat donc li nga jàngaloon lépp mais gis nañ nit keroog ak tey wax nga dëgg fàtte nan mais nag soo ci dikkaatee rek ñu rappelé wu ñu ñëwaat. te day tax sax nag mu gën a dëgër. ndax dañ cee jaaran jaaraat ci. ñoom sax wax nañ ko. Euh, loolu ni si semaine bii di ñëw ba nga xam ne lan jàng lépp dañ ci dikkaat ba ba nekkaat à jour mhm. ñu nag ci enseignement yu bees mhm. euh, puisque donc euh, li leen desee mën nañoo jàpp ne bëriwut ndax dañu fa am ab teewlu bu baax a baax ci li leen dese ci formation bi ban mën a yeggale waaw dese nañ 4 mois ñoom jàngagul sax moitié formation bi 6 mois lañ def kon desee na 4 mois 4 mois yi dañ ci jàng lu tax ñu mën a def examen ñi parcours dañ ci jàngal lu mën a tax ñu dem def manœuvre dañ ci jàngal lu tax mën a def évaluation finale. Mhm. incha allah rabi 4 mois seen programme sax mën naa jeex ci 3 mois yi. Mhm. su yéexee ci 3 mois yi 4 mois ba ñu defal leen révision générale pour waaja leen évaluation finale. Mhm. kon am nañ xel mu daal ci loolu.